ba ma mën a bañ a wax Souleymane ak Papa Samb Ndeye Ndesane ndeysaan ñooñu samay kóllël lan eh, war na ko kon doon na ko mu daanu doon na